Kafountine TV mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wér gu yaram santé animal nasaytu sama laa nu dundee fii la kàddu ngi nga mën a wax sa jaar jaar danga ko seetaan la dara raw mm-hmm. visibilité dinga ko am promotion dinga ko am nanga wane sa bopp ci émission jaar jaar bi nga am ndam Ladoum TV ne fi nga mënee ndax ñëpp xam. Tess ñu ngi ci box numéro 39 fekk fi un très grand champion Daouda Sène Thiénaba ñoo ngi lay nuyu di la siyaare gannaaw bi nga dugg see si foire bi nga def fi exposition bu mucc ayib Daouda lan nga ñu mën a wax si exposition waa waaw salaamaaleykum waa Ladoum TV mu leen di nuyu di leen ziar di leen kontaane waa ñëw ci foire bi rek muy suñu troisième édition. vraiment ñu exposé ay xar yoo xam ne nii gis nañ ne am na visibilité te gis nañ ne yoon na ay xar de waa di kontaan ci niveau foire bi rek waa kawe na trop. macha allah loolu am na solo niveau foire bi tubaar fakal la mu nekk foir bu extraordinaire gannaaw Adam dañu ne bii moo ci topp. waaw ñu gis nag euh, Daouda Sène def exposition def sélection bu rafet taxaw ak benn maal bu yanj maal bu rafet mu koy raay nii Daouda nga présenté ñu maal bi wax ñu mooy kan. waaw Abdou Soleil maal bi mooy Baye Zal ci 3 ans. di doom ci résultat résultat commande costaud bu dee côté yaayam yaayam euh, ñaari sutu kuraay ñu jur yaayam waaw mooy Baye Sall mooy maalu gétt gi moom la ñu liggéey instant yi waaw. macha allah loolu am na solo kii mooy Baye Sall tubaarfakalla waaw ba tey ci biir exposition bi rek ñu gis si benn femelle boo xamante waaw ba tey ci biir box bi rek euh, Baye nekk benn maal bu doy waar ànd euh, ay jabaram waaw ñu gis si benn femelle bu rafet tudd Amina def benn loos bu ñuul. tubaar fakkaala daar nga présenté ñu femelle bi. waaw Amina Amina doomu Souleymane la Souleymane euh, Maxtaar Maxtaar euh, Yaxya Yaxya Maktoum moom muy femelle boo xam ne ñoo ko ñoo ko produire muy femelle bu ñuy porté bokk ci ay jabaru Baye Sall waaw. ah tubaar fakkaala macha allah ba tey ci biir exposition bi rek. waaw ñu gis fii madame Sène tubaar fakkaala kii moom xanaa aw buru këram lañ ko dippee wala. waaw euh, madame seen mooy taawu Baye waa waaw aw buru këram lañ ko tuddee. waaw moom tam aussi tam famille Béniporté la muy suñu production waaw mooy taawu Baye Sall moom ci production bi la bokk. waaw ah, macha allah loolu am na solo kon yéen a ngi gis eh, liggéeyu bergerie Soxna May ah ñu ngi liggéey liggéey bu ama am solo liggéey bu doy liggéey bu teng daara seen tey jii seen bergerie ku fa bëgg ñëw seen adresse ak seen numéro téléphone naka lay def. waaw suñu bergerie bu ko bu fa bu fa bëgg a ñëw. waaw ñun ñu ngi Thiénaba en phase nationale bi près ci pharmacie bi ak poste ak bureau poste bi. waaw suñu numéro téléphone 77 la 504 81 88 waaw ku ñu woo ci numéro boobu di ñu jot incha allah ñu à parc national bi. am na solo Darou seen kontaan nañu bu baax a baax a baax. émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu yaram santé animal dina say